4 0 moom la Aliou Mamadou Dia am bureau numéro 17 291 pour Bassirou Diomaye 90 pour Amadou Ba 29 pour Papa Djibril 8 pour Aliou Mamadou Dia sunu correspondant bi ñu ko jox nag dafa tegle rek ñi nga xam ne ñoom ñoo fa am ay voix ne ñeneen ñi ci des daanaka amuñu fa dara wala ku ci nekk benn nga am wala ñaar résultat globaux yi kon mi ngi toll ci Bassirou Diomaye Faye 3271 voix maanaam bu nu ko xayma ci pourcentage téeméer boo jël 53 am 2181 voix te 65 voix la am foofu téeméer boo jël juróom-ñett muy 8 Aliou Mamadou Dia mi ngi am 198 voix maanaam téeméer boo jël ñett kese la ci la ci la ci ñett la ci am muy seen fief mais également lañ fa am bariwul dara muy Papa Djibril Fall di it ki nga xamante ne moom mooy moom Mamadou du jàkk fa jiitu kon moom mooy euh, Bassirou Diomaye Faye alors dañuy dem jëli euh, sunu ndaw li nga xamante ne mi ngi foofu ci Gossas su fekkee ne yemb na waa euh, Amadou euh, aujourd'hui euh, am na également ay résultats yu jóge fu ci mel ne Matam fu ci mel ne Podor fu ci mel ne Bakel ak écart bu yaatu lool nga xamante ne daanaka raw bi day yegg sax ba ci mille wala lu ko ëpp loolu yéen nan ngeen ko gisee. waaw bon <clears throat> loolu est-ce que raw bi mën na ëpp dans certaines zones comme boo demoon tey Ziguinchor euh, ak euh, région Casamance bi di nga gis ni foofu tamit c'est l'effet inverse bon fa am mais le plus important quand même bu ñuy analyser ay résultats euh, di koy joxe xam nañ ni c'est l'axe Dakar Thiès Touba qui mobilise quand même plus de 60 pour presque Saint-Louis Saint-Louis <coughs> plus de 60 pour cent des sufrage des donc nga xam ni yooyu yëpp c'est pas important pour le moment sur cette question là li gën a am solo nee naa la ñu war ko relever c'est le taux de participation parce que moom moom moo weeru koor la ñu nekk l'élection ñëpp gis nañ dans quelles conditions lañ ko organiser avec un temps de campagne extrêmement réduit néanmoins ça n'a pas découragé contrairement à ce qu'on disait que weeru koor bi sénégalais yi n'allaient pas se mobiliser ça n'a pas découragé les citoyens ñu dem exercer seen droit de vote maintenant par rapport ak tendance yi de toute façon euh, comme que ñoom tooguñu fi man du bëgg di spéculer ci résultat dans leur fief ñun ci tendance yi ñu jot que ñoom avant ils gagnaient dans ces zones à quatre-vingt-dix pour cent quasiment mais dans les conditions que l'on connaît on peut pas ñun di di di di satisfaire ci résultat yooyu surtout quand on sait dans quelles conditions lañ koy am par des achats massifs de de conscience par l'argent nga xam ni xam nga ba nga xam ni yow say représentants sax dañu leen di jënd donc loolu c'est pas c'est pas quelque chose boo xam ni dañ ko war a magnifier wala di ko glorifier euh, nonobstant loolu ñu xam ne kam ñi nga xam ni aussi euh, xëy na c'est localisé mais jëlal ce qui se passe dans la diaspora nga analyser ko nga war a ko laajte pourquoi la diaspora quand même euh, du régime loolu loolu moo mën a nekk une tendance boo xam ni jar naa analyser au niveau local li ma la wax la rek on attend pour l'instant ba xam euh, les tendances lourdes nan la je pense que yéen jot ngeen ay résultats yu bëri. oui jot li ñu jot yëpp wax nañ ko également. bien sûr mais euh, est-ce que euh, quand la l'axe qui concentre plus de 60 pour cent de l'électorat féete na fenn nga est-ce que portion yooyu wala poche yooyu ngay wax. quels que soient les écarts par ailleurs qui se comptent en peut-être li nga wax milliers de voix fii c'est sur des dizaines mën naa la jox les tendance à Thiès <laughs> su ma la waxee dans les communes c'est plus de dix mille voix d'écart donc loolu rek mën na combler euh, beaucoup de choses dans certaines communes rek déjà donc li gën a am solo encore une fois mooy ñu xaar tuuti ba jot résultat yi mais ñu xam ni quand même gis nañ opposition bi majoritairement félicité. oui Bassirou Diomaye Faye. je pense que loolu c'est symbolique et symptomatique quand même des tendances en cours sans que ñun ñu am besoin di auto glorifier wu ci quoi que ce soit je pense que boo gisee ba heure bii affaire bi calme c'est pas une bataille de communiquer moo lay wan ni ñi xam-xam nañ dans les états majors kon heure bii ku nekk yaa ngi jéem et justement que calme boobu quand même euh, euh, daawul am élection yi fi jot a jaar yëpp. a sept heures parce que bi chacun crie victoire. parce c'est incontestable. ñi nekk ci état major yi ñoom xam nañ se c'est incontestable. donc ñun ñi nga xam ni ñenn camp bi nga xam ni jàpp na ni xëy na gagné na mu am retenue républicaine beneen camp bi nga xam ni xëy na xam na ni ñàkk na mu mu mu mu defuñ communiqué moom tamit pour def bañ a def surenchère mais dans l'absolu boo gisee que le camp du pouvoir nga xam ni élections yi passées on les a vus aller à la RTS proclamer seen chiffre ce qui est ce qui était totalement illégal mais pourtant dañoo proclamer seen i chiffres à vingt heures tout de suite après la <laughs> fermeture des bureaux de donc ñoom nga waroon a woo moo tax comme que nekkuñu fi. waaw mais mais woo nañu leen normalement Bounama Kanté doit être en route c'est vrai que mi ngi mi ngi bëgg a yàgg mais ñu ngi am yaakaar ne dinañu dab ci biir waxtaan bi. waaw il est de la coalition Benno Bokk Yaakaar. donc moo tax ma ne la ñoom soo gisee génnuñu di surenchérir parce que quand même les résultats tombent au fur et à mesure mais euh, ñoom xam nga mën nañoo def seeni projection ba xam quand même. actuellement euh, fan la tendance bi féete et est-ce que même su dee ay résultats la ñuy xaar euh, euh, dans le Sénégal des communautés rurales et cetera ci centre yooyu que nii y a une tendance qui s'est installée et que les résultats ñoom yi ñuy xaar en aucune façon parce que dans les zones rurales contrairement à li ñu mën a xalaat ñun ñi nga xam ni def nañ ci tournée on a vu et senti le basculement parce que les législatives et cette présidentielle te engouement bii ñu gis ci lañ xamoon ni waxum les zones urbaines c'était quasiment acquise kooku du woon enjeu fondamental c'était l'enjeu de la participation mais dans les zones rurales yi ñu dem on a vu que ça a parce que boo demee ci population yi ñu xaar le meeting ba yenn yi nga ñëw ñuy waxtaan ak yow programme xam nga élection bi dafa am solo encore une fois soo gisee les sénégalais tendance bi am ñu voter que les deux partis principaux. bëgguñu disperse seen vote il veulent lancer un message. il faut décrypter ce message. très dinañ ci ñëw tout à l'heure voilà euh, ci message boobu. pourquoi ñoom ñaar tous les votes ñu reporté ko que sur deux candidats. le candidat entre guillemets de l'antisystème ak le candidat du système. ñu bañ a disperser vote bi je pense que.